nous dans un campement. Passez nous présente une villa à Boubès. Ici, c'est la villa Ndeye fatou, hein, dans un campement, il du Salou. 2 h de Dakar, 30 km de Joal Fadjout. La piscine est 14 m 30 sur 6 m 20 en profondeur maximum 1 m 50 Nous avons un salon qui bir bien, une table à manger. Le bâtiment est de 4 chambres climatisées avec leur salle de bain. Si vous avez balade en bateau, vous avez une villa Ndeye Fatou ñu yóbbu la ci biir mangrove yi yóbbu la découvrir ay ay yoo xam ne mosoo koo gis. demi-finale ordinateur Royal Assainies Toubacouta buuru Saloum ñu naan ko borom jamono ordinateur Ngane Niakhar moo ñu woon gannaaw Toubacouta la jàkkaar lool sama xel dem ci ñom 100 pour cent coolu na kur Momo bu di siar na la Paul mu di bege na la waaye Matar ñay bu kuta ngañ sar borom Ndofane tout droit France ngañ bege na la ngañ bu kuta ndesan buru salum ak buuru Sine buur Sine buur Saalum Toubacouta kuta jël na nako ordinateur daana Toubacouta ordinateur daana